sëñ Gassama ginnaaw sëñ May bokk na si ñi nga roy ak sëñ Gassama. waaw sëñ Gassama nga ñëw sëñ Gassama rek sëñ Abdou moom tamit. bokk na ci ñi nga xam ne moom dama ñàkk ñoom sago ndax. ndeysaan daanaka. li nekk waa li yàlla na yàlla yokki leeram. Mhm. barki Seelu Xadim ndax moom yool yi du du dakk mukk ndax lu waaye jàng. ci ay eeram da koy fekk si ci ci bàmmeelam. dëgg la moom bokk na ci ñi may wax chaque jour maanaam dañoo jànkatu léegi dañoo war a jël ku mel ne Gassama. Mhm. teewal ko seen kanam ndax xëy na am sëñ May ak yenn waxtaan ak yenn wala yenn doxinam waaye gasama ñu bëri dund nag ñoom moom mm. euh, dund nañ ndax 2006 la wàcc. dëgg la kenn ku nekk waral na di jàng dund gasama teg ko sa mm. kanam ndax mm. dana waral jàngoro yi nekk ci ñun jàngoro xasida dana deñ mooy jàngoro di xëccoo bëgg daraja wane nii laa mel wala yu bëri yoo xam ne ay parparloo gasama da cee deñoon ndax gasama daan ko invité guddi sax tàkkusaan lay ñëw jàng. dëgg la loolu fekkee naa ko ba waaw loolu yow da nga see waaw daan na jàng ba pare. daal di dee ko mel ne si Abdoulaye Touré daan man de ñeent fukk yu ma passé laa bëgg. te xoolal loolu. Mhm. fii ngay dem jàng fenn joxuñu la dara ngay kaas. kon yooyu dañ kaa war a roy ci Abdou man yooyu ba ma ko déggee rek laa ko jël bokk maanaam ma def ko sama bind. Mhm. ak toroxlu gi muy def di yar jëmmi baatam bi. Mhm. nga xam ne buy jàng sax day day baatam bi da koy yàllal ndax. maanaam moo waral ba ko suñu saar yu dégg nii kii de xanaa ca mag ña la bokk. ndax. njàngam day saf yàlla gasama li muy jàng képp ko dellu te yow maanaam am njàng ñor la da nga ci yëg yàlla te jàng na dañoo bëgg muy saf yàlla mm. jàng bu saful yàlla da xamul lu war a saf loo xam ne sëñ bi nee na ci aliwa ma euh, ci maxfos laa ko jëlee mm. ci aliwal maxfos laa ko jëlee mm. kon la fay jógee lépp nga xam ne nekk na loo xam ne yàlla gërëm na ko pare kon war nga boo koy jàng nag mu def ci yow jeexit defar la ndax xasida moom bu dee da nga koy jàng moom te defaroo ko moom bàyyi ko moo gën. maanaam am jàngoon xasida maanaam seen xaar gasam ak doy na. royukaay royukaay waaw. jamono ji daal ku ma doon digal. Uh-huh. jàngoon xasida uh-huh. ñu jël gasama teewal ko seen kanam. Uh-huh. ndax moom laa fi gis koo xam ne ku ko teg sa kanam roy ko yàlla xam ne ni da dem ba seexlu yi xew. waaye ndax yeneen am na ñoo xam ne au lieu ñu soññ la ci xasida ak sellal gi. duñ la ñoom seen yoon nekk ci duñ la ci soññ. gasama nag melul gasama daf lay soññ ci proxlu warmal xasi di ko jàng ni ko ni ni ni ko sëñ bëgg ndax moom gasama ñëpp xam ne daan jël mag ñi di leen royaat ku mel ne sëñ Moustapha Kébé mm-hmm. waaw day day jël ay daaj yu bëri sëñ Moustapha si ak yeneen ak yeneen di ko roy mm-hmm. te gasama moom tamit da ci am may ndax dañ ko kaa sol moom dëgg la ay sëñ moo roqee mu daaru salaam mm-hmm. bokk na ñu ne dañ kaa sol xaside yi nga xam ne kon gasama da ci am tawfeex goo xam ne dafa yéeme te ak buy jàng sax jafe na ma gis gasama fu muy jàngee feronkulaay gisaguma ko. déedéet da cee yar jëmm boppam. Mhm, waaye fii da nga gis. ni nga ni nga toogee ni la daan toogee ni la daan <laughs> nga xam ne loolu ba ma ko gisee rek dafa dafa daw dafa daw yaram ba nga xam ne. Mhm. ba pare am njànga boo ko dégg comme wajjatu bi. Mhm. wajjahtu wajhiya saa xurbin minallaahi bi jaayi ahmada saa sawqin ilallaahi allahu akbaru mimma kuntu amalu ولا أخصى ولا أرجو سوى الله سكري وسكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كل لو جل في سر وفي علن ولا أسأل خير ما في الله رباني أنا في الوهاب وأشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وخاني الدر تكريما ووجالي نفا بلا سبب فشكر لله الله أكبر من حقدي ومن عملي ومن مقالي فكل سار لله maanaam njàngam boo ko dégloo te li may gën a neex ci moom suñu moom mooy njàngam folklore wu. xam nga njàngam folklore baaxul. déedéet baaxul suñu Moustapha Saliou mi mhm. nga xam ne moom tamit bokk na ci ñi jànkatu xasida dañu ko war di ko ñaanal ku doon jàngal suñu Tuubaa rek mhm. nanga ma leen waral ñoom ñëpp enrichir enrichir bandi suñu Cheikh Gueye mi nett nee moom moo rajo bi suñu Cheikh Gueye moom ma ko nett ndax man moom nekkaan Mbàkke damay dem damay jaram ma dem ba ca mag ñi difa di fa roote di di xam di dolliwaat waaw moom moo ne ma man maa doon téye band yi mhm. nga xam ne sëñ Moustapha Sali am na sax euh, sëñ may miraadiyam bi mhm. moo ko ci laaj question yi xam ne sëñ Moustapha Sali jànkat yëpp moo leen enrichi mhm. Alaaji Cissé noonu la ko bëggee nga xam ne kon moom tamit war nañ di ko delloo njukkal waaye daal dama la bëgg xam ne njàngam ku koy ku koy jël sax ko jàng am njàngam folklore day da ci seet yàlla moom dëgg la ndeysaan alaa im ni usne bi mooy ألا إنني أسني على خير ملمي ولا سكين الخلق من فقد ينمي فمن سلني في قربتي ساء تسلل إلى خير من واسع فوقدمي لا أستكيد فيك وفقري وقربتي وأرجو رجوعي عاجلا خير منمي سكوت له أجزي فاسكى وكان لي بما فخسني فأكرم مكرمين ناجاني بما الخرم كفر بي فانما ماني تاردا كل مجرمين لو سكر من نيراب ديا منه من لبي بلا كلفة مني وخرسال محرمين لئن قرني ما القر سن واسدا فما قرني من خادني بالتكرم فمن يلقني للجاد بالبار ساقلا فقد جاءني في البار رجود المكرم ومن ساق أو كوني لمولاي عابدا وكوني قديما للسفيع المقدم. mu jàng bi yàlla rek nga ci yëg yàlla rek.